Pouddiack bokk ci commune commune du Notto Diobass suñu maire mooy ministre de commerce ñu koy wax Aline Sarr tey jii dañoo am lu ñu métti moo tax ñu génne waa dëkk bi yëpp taxaw fii di ñaxtu li ñu njëkk a métti mooy lan dañ fee ñëw ay jamono yële passé dagg suñu suuf si dañuy tabaxal université ñu dem ba ay weer ay weer université bi ñu gis fa ay poulailler ñu fa tabax te damaa jàpp université boo koy tabax pour ay étudiants la. ñaareel bi mooy depuis mille 2011 lañ indi courant bi biir Pout Diack muy tàkk ci mbedd mi di tàkk ci mbedd mi di tàkk ci mbedd mi ba jamono yee passé ñu coupé ko ci biir ñu coupé ko ci mbedd mi te dañoo waxoon na dugg ci biir kër yi fii lañ fi ñëw récupérer suñu vingt cinq mille francs ne dañuy indi ay compteur ba tey kenn gisu leen xama tey yaa tey ay jëma jamono encore ñu ngi toog ay tracteur ñëw fële suñu carrière bi di roñ suñuy xeer yi di yóbbu te amuñ ci lu leer dañoo bëgg ñu wax ñu leer parce que tey jii ay doomu village lañ dañoo bëgg suñu village lu ko jëmale kanam tey jii ba ñu ci dara tey jii ñoo ngi ñoo ñoom Alioune Sarr laay joxoñ ministre du commerce moom laay joxoñ mu joxoñ Macky Sall parce que moo ñu fi nekkal lu ñuy def ñuy def ragaluñ ci dara ñu ngi koy xaar le 20 le 20 bi ñu nekk lu ñu bëgg su ko deful élection du am biir Pout Diack kenn du fi voté référendum dañ koy boycotté village bi tey jii tey jii dañuy wax kii wax na plus de 2000 mais romb na foofu di dem village bi romb na foofu di dem tey jii suñu carte électeur yi ñoo ko moom tey jii gouvernement daf ñoo soxla ñun dañ koo soxla luñ bëgg nañu ko defal wa ilaa le 20 bii di ñëw kenn du fi voté. ku fi nekk leader fii nii nii nii nii ci biir Pout Diack ah. gouvernement bi la nekkal amuñu benn parti politique benn association association des élèves étudiants de Pout-Diack apolitique nous sommes des étudiants parce que ñun ku ne moo ñuy jàppale kon amuñu benn parti politique parce que dafa dafa dafa tombé xamul tax dafa tombe dañ ko yàgg a togg ba tey tey lay doog a ñor nag mu tombé ak élection yi di waaj xam nga te courant bi dafa coupé ci biir kër yi semaine bee ci biir ci mbedd mi semaine bee la fi coupé te ñoo waxoon day dugg ci biir kër yi te boobu ba tey gisuñu dara dañoo taal ay sondeel bay dee suñu néegi temps yi lañ lakk fii da ngay jékki-jékki gis néeg buy lakk sondeel moo ko lakk dañoo sonn da ngay génn fii dem doo am koo yaa ma gën a xam nga santé bi ak collège bi sem baa ngi nii kenn collecturé wu ko sem bi kenn collecturé wu ko tey tey instant yi maire ñoo doon cotiser parfois pour am ay salle de classe ngir seen doom yi fii nii ay partenaires tubaab ñoo ko tabax gouvernement bi rien du tout ay partenaires ñoo fi ñëw